très bien mais il faut ñu delluwaat ci historique bi tuuti. d' abord à Ziguinchor on a réglé un problème boo xam ne warul woon nekk problème parce que tout le monde sait bi ñu jàppee Ousmane Sonko contumace bi tëb na. bi ñu defee lettre de non acquiescement bi bi tëb na. mais néanmoins ils ont forcé ba wax ni dañ koy dindi ci liste électorale yi. fi nga xam ne fa lay inscrire fi nga xam ne fa lay voté ñu dem fa plaindre fa auprès du juge dans un jugement boo avec tout la pression le juge a donné raison à Ousmane ko wax ñu delluwaat ko ci liste électorale yi. Mm-hmm. ñoom ñu génn l'agence judiciaire de l'État fustige déroulement jugement bi ñu day récuser kii ba mu neex mu génn ci ñun on a pris le temps xaar ba wax ba ñu acte décision bi. Mm-hmm. tey ñu xëy dem di ko jëli dans une administration ñu toll ci ay élections. à la DG war na fa am nit koo xam ne mooy jël kii ñu naan disponible tey si ban administration la nekk nous nous avons fait 39 ans d' administration. Mm-hmm. xam nañu administration doxee. donc Sénégal dafa am loo xam ne il faut ñu koy dindi fii rafetul ci suñu der. mais est que teelu leen dénoncé xëy na aussi bu ngeen escalaatoon une autre fois wala jëm a jël rendez vous peut être fekkee ñoom maanaam ñoom euh, bu ñu leen tegalee piège rek ngeen jëm ko contourner après nag ba sës comme ça les Sénégalais n'auraient rien dañuy wax ni décision bi ko juge génnee. waruñu woon sax xaar ñu koy acté l'effet devrait être immédiat mhm. on pouvait dès lundi y aller mais on a attendu mardi mercredi ba aujourd'hui jeudi mhm. ñu soo ko fay dem ñoom dañu waroon toog di ñu xaar mais waruñu fa ñëw ñu naan nu ay waa ji ko war a joxe n'est pas disponible te ñoom dañu wax ni du tey du jour de réception chez eux mhm. pour des élections yoo xam mi ngi ñëw déjà sont pressés on est retard de vingt jours déjà sur euh, les parrainages nga toogaat di wax loolu c'est du sabotage c'est du n'importe quoi. Mhm. il faudrait ñu wax ko ñu tuddee ko li mu tudd. c'est du sabotage c'est un blocage aussi les les avocats di ko dénoncer ma bëgg xam tey jii la suite mooy ba xam demain aussi da ngeen ci delluwaat. Ah, mais bien sûr mhm. on va y aller demain. on va y aller demain comme disponible tey on va y aller demain pour voir ce qu'ils vont encore nous dire. Mhm.